kii day laaj mu ni waa ay wahabi bu reetaanlu la waaye laaj bu am solo la xam nga di wax lu lu am importance lu ñu war a xam mooy Sénégal l'islam mi ngi fi commencé tasaaroo en l'an mille quarante loolu kañ la woon onzième siècle ah l'an 1040 tarixa bi njëkk dugg Sénégal ban tarixa la tarixa xaadiriya tarixa xaadiriya kan lañ koy askanale Cheikh Abdul Qadir Jeylaani kañ la juddu l'an 1077 yéen ñi def mathématique l'an 1040 ba l'an 1077 ñaata année la ah 37 ans léegi kon l'islam dugg na dugg na Sénégal ba 37 ans ba am 37 ans Cheikh Abdul Xaadir Jilaani door a door fan la gane àdduna Sénégal ah Bagdad fële ci Irak léegi moom mu judd ba am 40 ans tarixam taxaw léegi l'an 1077 dolli ci 40 ans ban année la lay jox ah ana mathématicien yi 77 léegi 77 ans kon après après 77 ans tarixam taxaw d' accord mais tarixam fan la taxaw foofa ca presqu'île arabique ca Bagdad ñu dem 11e siècle la fi la fi dugg moom 37 ans après naissance am mu door a ñëw ñu dem loolu 11e siècle 12e 13e 14e 15e siècle 16e dix-septième siècle la tarixa xaadir ak si Sénégal ñaata siècle six cents ans six siècles tarixa léegi onzième siècle ba dix-septième siècle yi lu ñu doon dund yéen laay laaj ban lislaam la sénégalais doon dund ban tarixa la sénégalais yi newoon c'est-à-dire vérité yi réalité yi historique yi foog ñu koy wax sénégalais yi ñu koy xam nit ñi xamuñu ko léegi lan moo bees kon lislaam lan moo fi bees tarixa moo yàgga ah? léegi nañ bàyyi loolu yonent yàlla muhammad yéen ñëpp alayhi salaatu salaam ban tarixa la ne woon xam ngeen tarixam aboubacar lan moo nekkoon tarixam omar ousmane ali nañ bàyyi ñooñu imam malik ban moo nekkoon tarixam xam ngeen seen tarixa léegi Cheikh Abdul Xaadir Jaylaani kon ci moom la tari xaadir ci tax tàmbale moom papa lan la woon maamam lan la woon arrière arrière grand père am lan la woon ñooñu lu ñu nekkoon est-ce que nit ñaa ngi ciy xalaat ayib boobu mooy tarix xaadir ban tarix moo ci tege ci senegal siiw Sénégal tarixa Tijaani yi kan moo ko créé Abul Abbas Ahmad Tijaani ban année la ban année la gane àdduna 1737 kañ la gaañu 1815 léegi avant 1737 nit ñi lan lañ woon ñii lan lañ nekkoon moom moom avant muy créer tarixa am lan la nekkoon nekkutoon julit simple wala déet léegi bu ñuy wax dëggantaan fii ku topp naar kan la <coughs> kan moo topp naar ñun naar lañ top buñ topé naar tamit ñun naar bu mag bi lañ top bu yeen ci muhammad alayhi salatu wassalam mais am na top mir ay naar yu ndaw légui nit ki dane man Khadir la mom moko ko bopam ñu ne ko lan Khadir, xaadiriya mu ne man tariqa cheikh abdul Khadir jeylaani la top ñu ne ko d'accord yo Khadir. ki ne man man nekuma Khadir, doyuma man tidiane la ñu ne ko luy tijaan mu ko man tariixa Cheikh Ahmad Tijaan laa topp ñu ne ko d'accord yow tijaan nga kii ne man Chazili la ñu ne ko luy Chazili mu ne tariixa Chazili laa topp kii ne man euh, Badawi la wala Rifaa'i lan mooy loolu mu ne tariixa Cheikh Ahmad Badawi laa topp ñu ne ko d'accord yow loolu nga kii ne man duma ma xaadir du ma tijaan du ma Chazili du ma Badawi du ma Rifaa'i alxuraan sunu laa topp ñu ne ko wahaabi nga par force wahaabi nga léegi lan moo tax ngeen tuddee ma wahabi ñu ne ko parce que yow da ngay jàng téere Muhammad ibn Abdul Wahab waaw léegi man jànguma kese damay jàng téere Nawawi damay jàng téere ibnu Taymiya damay jàng téere ibnu Hajar damay jàng téere mu watta Malik kon kay xanaa Malik yi ngeen ma waroon a wax damay jàng téere Ahmad ibn Hanbal Hanbal yi ngeen ma waroon a wax damay jàng kitaab al fiqhul akbar bu Abu Hanifa xanaa fii ngeen ma waroon wax damay jàng kitaabu risaal ak umu bu Shafii kon boo ko de boo boo toppee logique bi kon doo am foo ma parce que ci borom xam-xam yëpp laay référé wu foo may boole est ce que man damaa ne Muhammad ibn Abdul Wahab kese laay topp comme waa ji ni mu ne xaadiri xaadiri laa topp wala ñi laa topp déedéet beneen bi li lay ne ñun Muhammad ibn Abdul Wahab li liñ ñeme ci moom ñeneen ñi ñu koy askanalee fañ bokk ñoom nañ ko def. ni maado bi ni téré bu di kitaabu tawhid n'est-ce pas ñun ñu jël ko ne ko Muhammad ibn Wahab sa téré bi d'accord kitaabu tawhid téré bu am solo la xam-xame na baax bu tawhid mais amna ci 11 hadis yo ci indi wérul légui ñeneen ñi nañ jël yeneen téré yi ñi top ne leen li ngeen bind fi wérul li ngeen bind fi wérul nañ ko def ku ko jëm xam ki nga top ne ko li nga wax fi wérul da nga joom ñun def nañ ko moom yoo xam mi ñuy askanale ñun ci moom la ñuy dellu téere kitaabu tawxid borom xam-xam yi corrigé nañ ko Cheikh Khalid Abdurahman Shaaya génnee ci fukki xadis ak benn yéeru ak ñeneen ak ñeneen léegi ñun dañuy jàngale téere bi ne waaye xadis bi wérut donte mi ngi ci kitaabu tawxid wérut parce que dañoo jàpp ne moom borom xam la comme yeneen borom xam day juum am na fu mu juum fu mu duñ ci ànd ak moom dañuy génnee njuumte li dañ koy dañ koy leeral duñ ci ànd moom ci njuumteem mais ñeneen ñi nag. est que ñun dañoo jàpp ne Muhammad ibn Wahab du juum wala yàlla la boo xam ne hors pair la boo xam ne du juum lu mu wax noonu la loolu lañ jàpp ah déedéet waaw ah, nit ki li li maanute nangu maanute li mu nangu mooy ñit ki lim ne man lii laa ñu ne ko loolu nga ci wàllu politique ci wàllu politique kii danaan man euh, euh, libéral laa ñu ne ko libéral nga kii man gauchiste laa ñu ne ko gauchiste kii nga socialiste laa ñu ne ko socialiste nga léegi ci wàllu diine kii ne man lii laa ñu ne ko doo loolu lii nga loolu ci ahlu sunna rek ngeen koy gis lii laa ñu ne ko doo lii lii nga ci ahlu sunna rek la am lu tax mooy li ñuy woote mooy li nekk dëgg nit ñi bugguñu koo bokk ak ñoom waaye bugguñu koo jël nit ñu bugguñu koo bokk ak ñoom nit ñun ñëpp waa sunna lañ waaye bugguñu leen koo bàyyee ne waa yéene waa sunna ñun duñu waa parce que boo ne yéene waa sunna ñun duñu waa sunna day garaw moo tax ñi bugg bugguñu leen koo bàyyee bugguñu koo bokk ak ñoom mu nekk loo xam ne day waar kon loolu mooy li indi terme wahabiste mooy dafa nekk terme boo xam ne ñu koy wax dañ koy jublu benn terme boo xam ne bu péjoratif la li ñu jublu mooy tiitalaate xasaate ñaawalaate mais aussi jabolisation la dañ la koy wax pour diaboliser la mais man xawma ci kaw suuf kuréel ak mbooloo gu tudd wahabis wala ñuy woote seen bopp wahabis mais xam naa kuréel gu tudd tijaan xam naa kuréel gu tudd xaadiriya xam naa kuréel gu tudd tasawuf ak leneen ak leneen waaye xawma ma kuréel gu tudd wahabiya ak ñu koy woote woo li ma xam daal mooy xam naa kuréel gu tuddee seen bopp sunna nekk ci sunna di dox ci sunna di wax sunna di jëfe sunna dund sunna tasaare sunna waaw fas yéene dee ci sunna wallahu taala alam